ñepp wax الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يعني نيب سباتو السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله دي سنت يالله borom tur yu sell ak melokaan yu rafet yi ci xewalam yu bari yi nga xam ne suñ ko bëgg lim duñ ko mën a lim wante bu ñu waxee alhamdulillah tënk nañ ko bi maanaa sàkku nañu ndollan moo wax ne la in shakartum la azidannakum te kon moom wér na ne bu ñu sante mu dolli ñu ndax innahu laa yuxliful miaad yal nañu yàlla dolli bi xormati sayyidil wujuud sallallahu alayhi wa ndax nag moom ko sant la ci foo xool foo làmb la nga xam la nga xamut di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy basrul wujud nga xam ne yàlla def ko tànn booba dara amut mu génnee lépp ci peyam bi te mooy buntab yàlla bi Mawlana Cheikhul Islam Baay radiyallahu anhu wax ne yoonu jàmm daal te ñëpp bëgg nañ ko mu ne mooy topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qawlan ndax moom daal لا يالله وخ سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يدو الله واليوم الآخر دلنكونا أرسلناك إلى رحمة للعالمين مطمئننا سعود الأمن سبيل السلام في اختفاء السراته هو الباب للمولى وليس سواه dem na ba di ñaan yàlla moom Mawlana Cheikhul Islam nag yow yàlla yar nag ma sóob ma ne bërët na ñamaas ñamaas na ñamaax ci yoonu yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ma képp ku ma ànd ak booba nag ci na mu jullit yëpp mu ne doon tënk da ngay safara sóob ma ci aw yoonam maag ñi ma ànd ak te mooy jullit ñi ñu dem ànd ak sang bi alayhi salaatu wasalaam mi yàlla wax ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah moo tax mu ne ko yaa rabbi uslug nii wa sahbi siratahu walaw kaana qabdal jamri fii qafwi naajihi salaatu boobu yàlla na ko yàlla dotti jëmale ko ci ay saabaam nga xam ne kenn rek ci ñoom muy Saad ibnu Waqaas bi ñu ko dencee ci suuf si Afrique rek tiitaru Afrique la sang yooyu ñooy royooyu gaa yu dikkati seen gannaaw képp kuy def lu rafet nag ba pencam yàlla yal na yàlla yégal la ci foofu mu jullil ñu mu yërëmal ñu gërëmal ñu Mawlana Seexu Tijaan radiyallahu anhu mi nga xam ne moom wali wu naan rek moom moo la moom moo yore xat miya ak kat miyatul wilaaya moom la Mawlana Seexul Islaam xool ko bam neex mu ne àndaxam ah, maag moom maag moom de du du ñaar de maag moom de duñ ñaar de موما mana mana mooma mahaqat سات السيق ساتي وأوصافه أوصافي فكل يعديم لبدك قرم ياك إني بمدهك أشدو إنه النسك فإنك القطم والمكتوم والملك كتمت في حضرات الحق ليس سوى المعتار يدريك لا إنس ولا ملك yàlla gërëmal ñu ko gërëmal ñu cheikhul islam Baay radiyallahu anhu mi nga xam ne def na rek aw jën ni xaqan li jabril kasri li ànd ni wakiilu sirri sirri yàlla daf ma amal rek may jàng damm damm yi ndax man la yàlla wakkil mbooti mboot mu wax ko nag rek ngir sant yàlla waaye nam nag wax ko ci ndigal ndax soo demee سيحول أسقمبا مغنان آه إني لأكتم سيرا لا يباه لقيريا وما قلت هذا دون إذن مولانا شيخ الإسلام باي بقي ننتي على محمد صلى الله عليه وسلم بقوك بقرك مبقلا دفني ألين لمن يقفو أمين وإنني شديد وصعب إذ أقاد إلى الأعوام Nada main noy nooy népp nekk am xar man Ibrahim. sama alal la ngi jëlal sama xam xam ngi ma jox la ko sama sama sama ma toog ak yow ma bok ak yow lek dem sopp bi yonente Muhammad sallallahu alaihi wasallam mune su fekke safan bala nak mom, ah damay fexé nga ñew de fek ba ngay ñewé ma ngoy fexé suma su jëmu ta nak ah mune ha ah, ah, ñang kon ku bëgg yonente sallallahu alaihi wasallam ba wax na ne bu ma ne bërit man Ibrahima di dem ci yonent yàlla Muhammad laa jëm sallallahu alayhi su ma fa jëmut mu ne li ma war du dem ilayka wa illa faraka ibu lam tasir lisaaniya talqun wal kullu nuwamu mu ne su ma ne bërit di dem daal ci laa jëm sa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa su ko li ma war dem day xoox mu ne ñëpp maanaam al kullu jooju nag mu ngi ci nam li xëpp ci nit ñi ñu ngi tëdd ne nemm di nelaw man sama làmmiñ wi mu ngay mbel mbeli ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ki ngay wax kan la mu ne ki ma xam na ko laqad dara Mustafa maarumtu min zigari wal yawma qad shaba fawdi sayyid al arabi mune Yunus yalla sallallahu alaihi wasallam sallam man lima diko di man Ibrahima bama nekké ci ber soba ba tay sama sama jubbu yu bay jawna na ci ben bayit bu mune ah, laqad ah, shaba ah, ba'd a'daa'i manam sama yenn bay jawna ñu ko ki wax kan la mune koku dal so ngeen mu koy tuddal sama ruubu ki day mel sama jëm ji ni picc mo xamne dafa nekk ci kaf gi te lepp doy li zikkaraaka te day le mom bu koy wax de nako yow mii li zikkaraaka yahruni ah ittisasu mawaddatin fa ruhi bi jismi ta'irun sakana qafasa kon kooku mooy Mawlana Cheikhul Islam Baye nek fi nak ci senegal suñu rew mu tedd mi nga xamne dañ ko bëgg tabax waye bëgguñ ko ñu bëgg ko te bëgguñ ko yaq te duñ ko mën a jaaree fenn ci lu ci lislaam bii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa indiloon ñu ak tariixa yii nga xam ne ñoom la ñu yàlla jox ay kilifa ngank ko mu bokk ci tariixatu tijaaniya tariixatu muridiya ak yeneen yu dul ñoom te ñëpp defar rek moo leen tax a jóg waaye mu nekkoon fi ak kilifa fii moom Mawlana Cheikhul Islam Baye ci réew mi ñoom ñëpp limu mu wax noonu maam Ahmadou Bamba wax na ko radiyallahu anhu mu ne soo ne bëri da dem te demoo ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow yaa wax ne yaa ngi dox mu ne mu ne waaye ñu xam dox xam ne ne jëmoo ne ko da nga koy bind ndax mu mën a des ñun su ko defee ñu man koo xam mu ne waman yasir li siwal maahi wasilatina fa sayruhu ànd ahli sayri kal xatami ku dox jëm ci ku Seydina Muhammad mu ne daal yaa ngi mel ni ku taxaw de moom fenn maam alaaji Malik radiallahu taala anhu loolu la wax bëgg yàlla kam yonentam ba ne Sénégal yow mii mu ah, la sëf ay juma ak i jàkk ba nga fonk julli moom maam alaaji Malick te teg ko rek ci yàlla ko ko sant nim ñu ko sante ñun ñëpp bas jot muy wax ak ay jaami yàlla bañ noote si jàkk ja rek ñu dal di julli mel ni julli mbooloo boobu moom faat na ko mu ne est-ce que dara yu buum ba sa lee ko di rawi bu mbësalee nàmp jaru ko mooy lo nekk ba julli jot julli ji wala rek maam Maodo ne ma maam Amadou Bamba ne man de su julli gi jotee julli gi mooy dikk dama fëgg Amadou Bamba jógal julli ma Amadou Bamba ma ne ko waaye fa nangu rek waaye ñun ñëpp loolu la wax inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta barki démb dañoo dem Madina Baye radiyallahu anhu siyaara ji xalifa bi Cheikh Ibrahim Ba te moo ñi fi yebal moo ñi yónni fii ci ay tànkam lañ ñëwee moo bëggoon a ñëw ngànt la am wante bañ demee ziyaara mu dal dem ci lew nañu seen ñu ziyaara ji fa nga xam ne mooy balluwaayu mbir yi foofu maam El Hadj Abdoulaye Niass tëdd nga xam ne Mawlana Seyxul Islam daf ko xool ba mu neex ko mu ne ko yow yaay fajoo si kaay xaajo maanaam yàlla nangul na la ba loo ko wax mu defal la ko ñu dikk di la tawatal aajo yi muy faju nga di ko wax sa borom. mu ne ko asmaau rabbi jamihan nilta azamaha lidaka kunta dawaman mustakal alami sama turu borom moo ci gën a mag su fekkee mën nañ ko tëggee noonu afan la tafdil mu ne ko làq nga ko moo tax ñu lay tawatal si soxla yi muy faju ñu dem ziyaare ko barabam bu tedd boobu ma dal di ne leen waaw te fekk mos naa fa dem demati fa waaye laaj bi moo ma neex ma ne ana maam ana maam Khalifa ba ma fay dem booba dañ ne naa xaajale woon nii wante léegi ñu boole leen moo tax man laaj loolu te defar bi maa ngi fa door a dem gis ne waaw noonu mu bind lu bari moom maam Khalifa radiallahu anhu nit mu Seexu Tijaan radiyallahu taala anhu defar lu bari ci Sénégal Maam El Hadj Abdoulaye Niass doomam yi li nga mën a wax daal mooy maam El moom yàlla la yónni daal la déggut waaye lépp a baax ñun ñas amuñ ci pegg amuñ ci xej ji amuñ ci seen dëkk bii tamit ñu dikk lool moo fi nekk ñu ndokkeel leen ñaan sem bi yëpp yal na àgg ni làmp yi nii yéen koy ñaan sax te ñaan nañ ko bu yàgg waaye yoon wi wu ñuul wi laa wax yal na egg si téléphone bi ñëw bu manqué ndox mi àgg ci fépp fu ko bëggee mbay mi mu ngi nangu na gën a nangu yeneen eh, développement am fi kaaraangi ak mucc jigéen ñi yàlla defar sëy yi diggante yi neex te góor ñi am dépasse di leen ko jox am néeg yu leen dëkkal yàlla defal ko fii defan ko ndukkumaan defal ko mboolem jullit bi hormat seydil wujud sallallahu alayhi wa dafa nekk ne euh, da ngay tënk rek wax tuuti ndax mboor bi moom muñ ko ñun kenn borom xam-xam yi rek ñoo fi nekk kuñ ci joxoon rek mu wax lu gën a rafet li mu wax te gën koo jot wante ñu ngi sant yàlla bu baax beneen yoon di wax ne nañu gën a góorgóorlu fii buñ fi ñëwee ñun amuñ fi dara lu ñuy digle ndax fekk nañ jàngalekat yaa ngi fi defarkat yi ñu ngi fi waaye daal li ñu sant jaamu yàlla ba ci jiitu boo amee tawhiid nga dem julli ji te te jàkka ja moo ci gën dem te jàkka ji julli ji bu ngant amul Mawlana Cheikhul Islam Baay mu demal ca jawaayu rasaayil mu ne ngàntu du dëkk ngàntu du sax te du matale ñëpp al usru la tadumu wala taumu alqabilata ñëpp am ngànt bàyyi ne déet bés bu ne dama am ngànt mu ne déedéet jullit suba ca ajjuma ca mbooloo sang bi na man dal na na dal kuñ jéggal rek moko mëna téwé a la kon jémal dal julli ji dàkkal fajar ak djuma ju nek suba si djuma ju nekk dama julli ci mbolo mo suba si djuma ju nek dama julli ji nga def ko ñent semaine djuroom ñaari semaine at da nga doli benen bes doli at bu yagge semaine bi ak ya ci haji yépp bu ko lolu julli gi mooy bopp yëf yi te Mawlana Cheikhul Islam Baye def ko doon bàyyi ko ci néeg ak gan goo mën a dox soo see bu julli gi jotee ngeen ay ànd dem de jog dem dëgg ànd ak awsa yi ñu dem mu julli mënatul ko ndax mag gi dikk na mu nga yetam woo nga xam ne mu ngi ko jëlee ci Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu te moo ko wax busraaya hustu la si qad hasa matrakuhu hasa imami tijani qad sirtu amlikuhu wa xayru zalika mimma lastu alfazuhu lakinani nit sirran hasa matrakuhu mu ngëb yet rek julli ba mu gi gën a ñëw mu dugg ci oto bi ne jibril taalal te noonu la doon jàngee alxuraan itam ñaari kaamil lay demee bu la neexee subon jàng juróom-ñaari yi sib ci bëccëg di ko xool def nii baaraam bi di ko xool di jàng te ñett yooyu bi ngay jàng ci kaw nopp bi di ko dégg nga di ko laal ñetti tiyaaboo boobu juróom-ñaari yi sib moo ñëw gan mu ëpp kuy am gan gan waaye xateewul ko dana ko jàng su xatee ba bu guddee mu ne jibril taalal oto bi mu wër mu loolu ca tarima la ca guddi ga waaye bëccëg bi moom jàng rek bu ko defee ci guddi gi mu dal tëri juróom-ñaari sib yooyu mu jàngoon bu ko defee bu ga yi demee ba ki mu dal dee ko naafila ko mën nga wax ñetti kaamil lay demee bëgg alquran ba nga xam ne wax na yàlla ne ko suma karaama na nekk alquranul karim karaamati منك ننك قريب إلى لقائك العظيم آه وأنا بولي شون مستن تل مهناي ديكو جفي ديكو جانجل دومي أك دومي جلدي بين دمي ببغ تعريف القرآن تمن تنك يكونون جيم رين يوم سين هنا وين من تنك من محمد الخزيري mi ñu dégg ci Égypte mu ne euh, Jamal Abdou Nasir bëggoon Mawlana Cheikhul Islam bàyyi loolu mooy mu bëgg ko mu jënd fukki junne téere jox ko na demal yow Afrique nga séddale yow ku bëgg jàngale nga ah mu ne nañ def bare ñu dal di jàng kaset boo xam ne dañ ko séddale ci gox yi ñu ko war a séddale ndax waaja lam bindoon mooy waman yebtaxi lislaama diinan mu daal di dindi xayra ba wane tax lislaama diinan fa la yuqbala dindi na xayra ba te moom daal mbindum arab dafa yomba léegi rek mu nekk leneen ndax baatab xamida booy tomb rek muy xamida xamida sant na xamida ne na kamañ parce que tomb bi moom da fasaawoon na bu am ñu ko bind leetar rek mu da di tomb benn tomb rek kon li ma bëgg mooy foofu ku bëggoon jàng alxuraan la waaye itam nag ku ko taxawoon la di ko bàyyi xel yàlla mi xaar alxuraan boole ko ci te kii wax na ko léegi ne comment euh, Napoléon na ba wéyee jeex te loolu mu ngi ci seyrul xal bi bi mu mujj defar defar juróom-ñaar fukki téere ak juróom taalifam yu mag yi mooy tamassa shujaa tamassa shujaa laal laal lul jàmbaar ji taalif yi yu mag yi taa tay surul miim manasiku ahlul bidaat siin salwatu sujuun shiin bu mooy shifaawul asqam ayn urwatul wusqa liif wala jiim jaami wa jawaami noonu rek nga koy seetee bugg sang bi lool lool lool def ci alal ci joxe rek tabe bëgg ñëpp nag boo dikkee sax da ko woon yow di fa la bañ mu ne déet eh, fa ma xamul man ku ma xam bëgg ma nga ne yow bàyyi ko yow kan yow kan nga bañ mu man day xéeféer bi gën a ñuul xol li ma xam ci li gën ci li ma xam na naa ko bu nangoo mooy baatab laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah kooku daal ku rek ma jox la ko kon nañu xormalante la wax bëggoon magam jooju may wax muy maam Khalifa Niass maam Khalifa Niass bëgg ko maam Khalifa ñu ne na yéen de ngeen wax ne laa gën a bëgg waaye ah, li mu def wax dëgg yàlla ku ko def ñu bëgg la moom lu ma am jox ma te lu ma mu bàyyee ma ko dal dina juróom de moom kenn mënu ko weddil Ibrahima ñu ne lan la mu ne xam xam-xam fit tabe euh, dégg nga waaw waaw waaw xam xam-xam xam fit ak ak tabe waaw wax na daal wax na daal ak rafet taaru moo taaru maanaam daal kon xam nga ne maam xalifa baax la wax lii ci sa rakk waaye déglu Mawlana Cheikhul Islam Baye dikk na boolante mboolem doomi Baye mi wan nga këpp ba may ñaan boo demee ca Kansul Awliya ba mu fay ñaan wala Kansul Masoor ba may ñaan ca benn kii ba dafa dugg ba ci biir mun di ñaan yow yàlla xabool ak Omar Omar xabool ak maam El Hadj Malick nangu Seexu Omar nangam. di wax ba ci maala jëm lay ñas nag mu ne ko wan na jaabata awlaadihi doomam yu baax yi yow maam sama bàyyi alaaji abdoulaye sa doom yu baax yi kii kay xanaa bëgg na ay mbokkam nangu na ne it ñu baax lañ momit it noonu lañ ko nangulee ñu ne ñu ne bu daan tukki moom na sexul islam day dikk ci foofu ci leew nañu seen tàggu xalifa bu ko defee ne ko maa ngi jëm ci sa taalibee bu demee indil ko sërice bu dikkee ne ko sa taalibee la ko jox bés nag mu indil ko moñete fon maam Khalifa ne hee Ibra yow de adduna nga daan indi waaye yoon de àllaaxira moo tax bay laaj ba radiallahu taala anhu daal ñas mu wàcc toog ci suuf dindi li ci poosam bi jox la ba léegi Cheikh Ibrahima Ba foofu la taxaw ah maa laaj maskat foofu moom juróom-benni at yaay bay laaj baawu ba nekk ca Koosi juróom-benni at dawal jëlal maam El Hadj Abdoulaye nekk fa ci ndigalal ni daay maam El Hadj Saloum Diané ñoom ñooñu nga dégg woy bi kii doon woy léegi sëriñ Siyaan waaw ak yi ci aju jaar ci maam kalifa ñëw ci maam kon loolu la kon ñun ñëpp nañ sant yàlla te tegu ci yoon woowu yeneen yi def ñu sonal rek di dem tool ngëp sa hiléer benn waaye daf la naan la sëy liir bi dafa dëng ngay xuloog moom doo dem moom du dem dëng ñun li ñu xam nañ ko xam nañ ko téye bu dëgër nañ bokkoo suñ bokk gi bu ko dara yàqal yàlla lañ bokk nañ koo séddoo nañ dem nag jaamu ji ko lii ñuy liggéey muy zahir bi mën nañ ci jëriñante ku ne mën na ci jëriñ morom nga am sa waruwaay yóbbaale sa mbokk la yonentu waxoon ca xare ba boo amee ndox may sa sa morom yow waaw sëñ Abdou Samane mii fu ñu daje li muy wax ba biig bi ñu demee ci jàngi Taïba yi li mu wax Cheikh Ibrahim Ba alxalifa tey bokk na ci li ñuy waxtaanee biig ci jàngi Taïba yi lu ñu fa waxtaanee waxtaanoo Cheikh Abdou Samane dana ci bokk lu ko wàññi lu ko wàññi gën a baax rek nangu sa mbaax waaye du nangu ca du du sa gos dara kon fii lañ taxaw te fii lañ leen fekk dëkk bii dëkk bu am xorma la ku xool jumaa ji te Malick junj ko léegi waaye jumaa ji ñi toog jàkkaar leen ak tool yi ko wër boromam toj ko di daan fi bayee maa ngi wax léegi ma ne sama maam alaaji baabu ndaw mii radiallahu anhu fekkee na ñun mu bind leetar di ko jox bay alaaji baabu ba di sant yàlla ne ren am naa junnee takki dugub suna junnee takki dugub booba booba loolu neexutoon am de booba loolu neexutoon am de waaye mu sant yàlla yónne ko loolu yàlla defal jàmm yal nañu yàlla may dégg ak yàlla buñ yàq bokk gi yal nañ deferu ci diina yal nañ deferu ci ànd bi yal nañ yàlla dimbale dëgg-dëgg dimbale may ñu kër yu baax jabar yu baax doom yu baax xanandoor yu baax nangu jaamu gi jéggale bàkkaar yi jox ñu ay waruwaay yu baax dëkkukaay yu baax koddaay yu baax nangu suñuy ñaan musul ci lépp lu ñu ragal loola nag yal na ko yàlla defal dëkk bi defal ko Lukumaan defal ko Sénégal defal ko Afrique defal ko mboolem adduna fi ñuy jeexalee rek te Cheikh Ibrahima Al fan yi fu mu waxee rek ndaxte dëgg-dëgg jamono ju nekk rek xutba ci arab dafa am lu muy wax Sénégal dañoo toll ci jamonoy tànn te yàlla moom tànn na bu yàgg mun ngi ko nëbb nag di wër-wër ak ñun dañu natt ba xam ñun nan lañ cee def fañ cee rafetam sama baay day mu ne waaye yëf yi ñun mënuñ ci dara sama baay El Hadj Amat Ba radiyallahu anhu mu ne yëf yi ñun duñ ci dara fañ cay rafet mbaa ñu ñaaw ci rek waaye pare ko defee nag kooku nag di tànn lii di jublu si ñu war a tànn daal na rafet di ci yàq suñ bokk gi toj ci suñuy kër lakk ay nangam na déedéet jaru ko réew mi fi ne tabax nañ ko ba mu toll foo xam ne ak waay waay waay nañ yokk waay waaye toj ci dara ëpp na li sëriñ Aadi nag di wax suñu sëriñ doomi Baay Laaji Amadu Ñas radiyallahu anhu mu ne maa la gën a kannasu maa la gën a naan maa la gën a dof maa la gën a réew mu am ci mbax na sax ëpp na wax ma laa de ci sa am bu tubur kon afana tafdil maa la ko gën a maa la ko gën a maa gën a am teraga maa la gën a sopp maa la gën a baax maa la gën a mën a rafetal in ahsantum ahsantum li am anfusikum lii rek la Mawlana Cheikh Baye mu ne koo ne xaama na ma lay def nam la dafa tax su ko ñëpp defee rek mbir mi day rafet kon nag jërëgeen jëf waa Madina maam Alaaji Baabu Ndaw jërëjëf Paate Ndaw euh, ak si Siñaan nga xam ne yéen nekk ci bopp lii waaye nekk ko euh, borom dëkk yi li ma gën a neex si jotaay bi kilifay dëkk bi ñu ngi fi toog waaye jigéen ñi ñu ngi toog gune yi itam ñu ngi toog loolu mooy réew mag ñi gune yi jigéen ñi te kat ñooñu moom la yonent bi wax mu ne yàlla sama borom subhanahu wa taala bés bu nekk bu jant fenkee dana xool suuf si dante na waaye asamaan si waaye tee ko mëpp tee ko mëpp waaye film bi fin bu mu yàgg mu ne déedéet yërëm naa guni yi namp yërëm naa bahima yi ñu xew yërëm naa jànkati alquran yi waaye yërëm naa yi tamit mag ñi nga xam ne ar rukons sujud mu ne su dootoon ak ñii ma rus wala laa di faaw laay wala la annaasa baadun waaw bu fekkoon ne du jëñeel ak yàlla ñenn ñi si ñenn ñi kon nag bari na ku tëdd di nelaw lala bàyyi ba ngay nelaw ah kooku war nga bàyyi xel bàyyi ko xel te yàlla mu ne su ngeen ma baaxee ci seen xel yi rek ma dooli leen xel Mawlana Cheikh Baay ne li ngay def muraqabatu mawlaaka fil anfaas nga bàyyi sa xel sa borom ci nox yi ci wax ak ci jëf mu ne yow soo defee loolu wàcc nga yàlla la ko war dana ko def yal nañ dégg yal nañ topp yal nañ am barke yal nañ mucc bés bii yal na ko yàlla nangu ndaxte yàlla daala ko tax a jóg yu raxul dara jataay yi nag yi mel ni moom ci réew mi bëri na waaye ndokk luñ bëggoon luñ bëggoon mu xem fi mu tuuti du mën a tuuti benn benn la fi xoon ñooña di dem di xoote ñu leen di xëy buñ demee ñu ñaanal ñu taf li ñu seen tafliti barke ya xool ñu seen bët yu xiw ya ñaanal ñu ñu tibb yóbbuwaat waa waa tibb ci taal dem ne doo tàkk ne pour lan moo tax affaire yi fi ne nii mu gën a bëri gën a yaatu kon loolu rek la waaye xiw la rek yeneen géew fi nekkoon yàlla moo ñu bëgg yërëm nag indi ñu géew yi fii biñ fi toogee ba tey tiyaabo rek bépp bu mel nii tamit tiyaabo ku fi jógee ko nu mu néew néew for benn baat boo xam ne xanaa boo da ci kii waaw kon nag lii rek la na gën a bëri na gën a yaatu lam Mawlana Cheikhul Islam foofu lay jeexalee ñu ne ko waaye ñes ndakaaru daal jàkk yi dañoo bëri mën na leen bëgg a gën a bëri teñ de si jaamu yàlla daal kon la sama baay Mouhamadou Lamine waxoon ne ma jotaay bi de ba ma ne waa mu ne su fekkee nii la su déwénee dana dem ba ca guy gële ma ne ko nii laay doon nag inna laa laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim keroog bañ ko waxee léegi de la ba léegi de buñ. torgo nangoo ñaq muñ gàtt tànk gatt làmmiñ tey nag portable yàq na lu bari si jamono waaw lu bari sëy yu bari nekk ca Ndakaaru xamee portable jox ko sa jabar fii. soo ko xooyee ñaari yoon sax muy togg wala muy defar gunéem nga gëdd ko ne lu tax sama la xooyee doo ma xëyu sëy ba naqari na Ya ko joxoon yaa ko joxoon nangul portable bi mu jeex wala bo nga gis ab numéro te yow xamula ki ko defoon dafa joom wala nijaayam la am bayam nga commencé na ko bi numéro fu mu nangul portable bi tak. koy nangu nangu ko mu jeex tak waye it nak yow jigen ji nak attention fu la hoye rek portable nga daw ci roq bi loy daw do tok fi, toogal hayo fi li rek la waaye koo ci xoo mu daw portable rek ci kii ba déedéet toogal fii toogal fii su ko defee ñun góor ñi ñu yërëm jigéen ñi ñu yërëm jigéen ñi ji ñun suñ dara matul su ko defee nga bëgg koo ko buñ la ko su ni man ko nay neex bu solee na ko bu toggee nga ne ko fi may jeexalee ngeen baal ma ñu ne maam Alaaji Maalik Si radiyallaahu taala anhu dafa am soxna soo xam ne dafa ko toggal dem nag nekk xorom si def ko rëcc mu ëpp mu fekk fi sang bi toog ngëb jukki bi di jàng mu ne soxna si bi mu gisee dongo yi yoor lekk xorom si safra ñu wittax seen loxo rek daw ñoom dongo yi mu ne soxna si ba mu ne ndeke xorom si la mu dikk di tuub si déglul wax ji de mu ñëw fekk fi sang bi toog mu muñal ko ba góor gi pare jukki bi ne ko soxna si lum do mu ne ko damay tuub xorom si déglul le ko sang bi tontu ne ko man dey soxna si lekk ku ma xoon si xëy na jëlaaroon lekk bari na góor ñoo xam ne tey boo defee kaane ñu wéq ndab li wax lu bon waaye bari na jigéen ñooy buñ kaane woon mu saf wala xorom soone ne acca bismillah euh, ñu ne moom day man lekk mënut ba <laughs> du fekk du loolu kon nag dañuy bàyyante xel bu baax di xormaal it ñi ñu ko jox buñ la mayee jabar nga fonk say goro yow de may nga sa bopp ñetti jabar ñeenti jabar waaye buñ ne diw kee moom kii ah waaw mbaa da nga ñaareel kon nag loolu la yal nañu yàlla may jàmm yal nañu jox dépasse suñu mën a jox suñu jabar yi jox ñu xol yi ñu leen yërëmee ñoom itam ñu bëgg yàlla def si njaboot ñu mën a jëmale ci diina suñ Sénégal gii yàlla buñ ko toj yàlla nañ ko tabax yàlla buñ ko rajaxe euh, wate baa ngi ñëw ku nekk rek tànn ci na neexee li fi xew nag ci fan yi nga xam ne mooy lu jaaxal ñëpp mu xaw a jaxasoo yàlla moom dëgg-dëgg borom mbaax la borom yërmande la yàlla nañu yërëm ku nekk daal na ci wax lu baax waaw ku nekk rek na ci wax lu baax da ko ci dox euh, jottali nañ leen nuyoo bay El Hadj Souleymane Ba annaatiqu rasmi yi bi may ñëw ci ngoon gis naa ko tàggu ko mu ne ma xamoon naa xëy naa dem waaye daal dooy ngeen ñu fa dem leen nuyu leen ñu bokkee te lu baax rek lay wax wax dëgg yàlla moom bëggu dara yàqu day peeg rek di dajale li may wax ñii xam nañ ci dara noonu nag la leen daaru muhibbiina yëpp nayoo bay may ma yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu ma sadiqin dëggu dafa am solo mooy maye lépp تمام وخونا نكو بغ باي لا والله تباين انا ومن يحبني ومن يراني في جنه الخلد بلا بعتان وانت من الصديقين دك دك بروم باخ لا دفام بن صحابي بو ني تودي خزيمه مو فك سانغ بي عليه الصلاه والسلام di jaayanteeg benn arabi yu benn fas sang bi ko yaa ma ko jaayoon arabi yu mu ne jaayuma la ko ñu nekk fa di wax te moom mooy sadiqul masduq ah ma ñëw ne ko eh arabi yi mun a mun a ko yaa ko jaayoon fas wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko déet Xusayma bul ma jommal yow seede looxuñ la ne yaa ko fekki woon ngay seede foo ko teg mu ne ko man ma de la dëggal ci xabaaru asamaan duma la dëggal ci arabi yu bii sang bi ne hee seedab xusaymatu bennam bi ñaar la xam nga ñaari góor mooy seede wala benn jigéen eh, ñaari góor eh, benn góor ñaari jigéen waaye mu ne xusayma bisab tey yow ñaari ñaari góor laa la taxawal kon dëggu am na solo li mu wax ne bëgg na paate te seereel na koy yonent bi dafa am benn waay bu na sallallahu alayhi wa sallam ne ko kii dama ko bëgg mu ne ko wax nga ko ko mu ne ko déedéet mu ne ko wax ko ko waaw Mawlana Cheikh Baye ne dama xool yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa li ma bëggoon ci yàlla moom daal ci laa ko mën a amee ma bëgg ko mu ne bés bu ne ma di ko gën a di ko gën a xam di ko gën a bëgg asiidu ishtiyaqan hina sittu tadalliya sëñ bi jërëjëf yal na yàlla dolli la wér dolli sa lijaaba yaag say rakk ak paata ndaw ak Babacar Ba ak xalifa Cheikh Ibrahim Ba ak xalifa Baye Mouhamadou Lamine ak mboolem xulafaa mboolem aimma yi mboolem duhaat yi barke Seydina Mouhamad waa am le